yabal serigne basirou mbake mom serigne mbake Mbàkke soxna lo di rakam di jeurinam mo ro na ànd ak mom Fàllu moom sëriñ Mbàkke soxna loo mu xawa am ngant serigne basirou tewal len kon mom lañu jox kaddu gi ci ndigal serigne bi ndax dafa am benen bis yu ni yu mara tew kon ñu massa ko deglu ndax mo fi tewal sunu yaakar di yaakar serigne bi sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Mbacke soxna Lo bu ko defee nag bu noppee bu defee ñaan ñu soog a yeggale liggéey bi tàmbali suñu cérémonie officielle kon su préfet sëriñ bi day jox kàddu sëriñ Bassirou mi fi teewal sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed bisimilah. aouzu billahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. la bokki jullit yi bokki lislaam bokki talibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ Cheikh Jaw moom bàyyi sëriñ Jaw Mansour moom Cheikh Mansour Jaw sëriñ bi nee na sëriñ Bachiru Mbakke Muhammad mi toog mi ngi yëkkati ab nuyoo bu bàyyi ko ci kilifaam sëriñ Fadilu Bakke moom sëriñ Bakke Muhammad mu bàyyi ko ci kilifaam sëriñ Moustapha Mbakke Muhammad mu yabal ko fii kon sëriñ Basiiru wax na ne mi ngi fi ñëwee ci ndigalul sëriñ Fadilu mi ko yabal ci jataay bu tedd bile ci bis bu tedd bile ngir jataayub fàttaliku bis bu tedd muy bis boo xam ne jëmm ji nga xam ne moom la ñuy fàttaliku ak dikkam fii muy sëriñ Seexuna si Ahmadou Mbakke Gaynde Fatma fekkoon ci fii taalibeem ba soppeem ba liggéeykatam ba ba loolu doon jëmmi bis bii tey booba ba léegi it njaboot gi di ko fàttaliku ba tey yàlla def nga tooge jataayub Baay Sëriñ man Mansuur sëriñ Cheikh sëriñ Mouhamadul Basir nee na mi ngi lay siyaare ci bis bi di la jottali siyaare sëriñ bi ci bis bi waaye nee na mi ngi la ci jottali ak ñaanam bu baax ci bis bi ci barkeb mag ña ko taxawaloon ba mu yegg si fii ngeen wéyal liggéey boobee ba nëgëri sëriñ Cheikh sëriñ Mouhamadul Basiru nee na sëriñ bi wax na ne mi ngi lay sant te di ko seereel mboolem. ñi nga àndal ci liggéey bii nekk ci ginnaawam moom sëriñ Mouhamadul Moustapha nee na seere na jëf ji rafetlu na ko lool te ànd na ak pësteef te it mësoo cee jóg kon nag sa way jur wu tedd wa bay sëriñ Jaw Mansour liggéey ba mu jële woon ca sëriñ Mansour Jaw di ko doxal ba dëgg mu nekk ci say loxo sëriñ Basiiru nee na sëriñ Fadilu nee na sëriñ Moustapha nee na liggéey boobu yàlla na yàgg nee na yaram yu wér cëng waaye nee na ginnaaw nag nuyoo bi ak kàddu yooyu ak seere si bis bii mi ngi fàttali li nga xam ne moom la sëriñ bi di wax def fu ngeen dem lool lay fàttali képp ku ko yaakaar tem dox digganteem ak sëriñ Touba Cheikhouna Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul te mooy ragal yàlla mi nu bind te yaakaar ko te nangu koo jaamu tey sellal jaamu gi tey dimbalante tey suuturaalante te di ko def te yàlla tax te sax ca sëriñ bi ne na mi ngi koy fàttaliku mu àndal loola it gannaaw da ngeen a nekk ci ginnaawam ay mbooloo nekk ci seen ginnaaw yéen ñëpp ngeen maase nosu tege ci siraatal mustaqima sëriñ bi nee na loolee yoon wi nga ci aw ba tey jii bis bii rafetlu na ko lool mi ngi ñaan yàlla na yàgg lool waaye nee na liggéey bii nga xam ne ci la ànd ci ginnaawam muy ittihaadu ahibaa il xadiim li nusrati diinil qawim sëriñ bi wax na ne kenn ku ne xam na ni taxawaay bi nga ci taxaw ak liggéey bi nga ciy liggéey ak fi nga ci tege sa fooy jur wa tege woon kenn ku nekk ka mu dajeeloon jamono liggéey ba mu ci doon liggéeyal course bii nga dajeel fi nga ci fekk yaa ngi ci daw sa kemtulaayal kàttan di ci def loo mën ak loo mënul sëriñ bi nee loolee gis na ko bu baax te nee na it li nga xam ne moom lay liggéeyal sëriñ si Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma ba waxoon ne liggéey bii li ma ci jublu mooy bu ëllëgee yow mal xiyamatil akbar du ma fa nekk rek di taasoo liggéey yi mag ña waaye danañu xam ne may ma woon di nelaw defoon naa lii sama wàccuwaay nee na loolu yéen itam sëriñ baa ngi seere na ki ngeen ci la lajal nee na loole itam yéen a nga cay def la ngeen man kon nee na mi ngi leen di ñaanal di leen wax ne bis bii ku ci ñëw ku nekk mi ngi ko ñaanal yàlla na ci daje ngërëmal sëñ Touba waaye nee na mi ngi ñu soñ ci jaamu yàlla ak rafetal ko waaye nee na mi ngi soññee dimbalante gi ak suuturalante gi nag ci diggante taalibe yi te yàlla tax sëriñ bi lii la waxoon ne bu ñu yegsee ci yow sëriñ seex ñu dénk la ko bis bii yàlla nañu ko yàgg fekke ci barke sëriñ Touba Khadim Rasoul barke sëriñ Mouhamadul Moustapha barke sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde mi waral bis bii barkep serigne Mbakke mohammed mi nga xamne mom la serigne Moustapha mi toog ab jataayam waye barkep khalifa bii di sëriñ Moustapha mi nga xamne mo jox ndigal serigne Fadilu mu jox ko fi muy tankam yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon serigne bi neena na fu waay nekk nga talal say loxo serigne basirou ñaan te ñu wax amin amin ya rabbal Alamin, Amin, Amin, Amin. آمين آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين kon ñu jëkkal toogaay yi rek tàmbali liggéey bi ñu jëkkal toogaay amiin amiin amiin amiin yaa